tay nak ñi ngi ni ndaysan di wacc di dem ci bis bu maga maga maga maga mag bis bo xamanteni ni bis bu am solo la muy ñuy nek fele di sante Serigne babakar sidi di ay taalibe Cheikh di ay julit yu baaxa baaxa baax tay nak ñu def délégation nak and ak suñu doomu nday gi nga xamanteni ni suñu xarit suñu mbokk di mag ci ñi di rak ci ñi di jarbaat ñi muy Serigne Oustaz mbay cioro jeng mom lañu def paré nak fele ci sante Serigne babakar si modax tay ñu taxaw ni di préparer pour dem ñu taxaw ak nak suñu kilifa euh, imam al akbar suñu imam ratib omar diallo mom mo taxaw ni imam ñu le tabarakallahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu ñi ñuy sétane ñep eh, di am mbégte nak ci guddi gi tay wala ngon gi tay mi nga xamné dañu parrainé suñu rak suñu jarbat suñu collaborateur nga xam ne ku nekk xam na ne sama digganteeg moom fa la suñu digganteeg moom kooku nag suñ ko ne ànd ak moom sargal ko màggal ko teral ko ñu xam ne moom euh, ki ñu tuddee euh, ngoon gi Serigne Babacar Sy euh, ku riche la ci ñun fa tabaarakallah moo tax ñu taxawee ni ànd ak ñu ñu àndal Serigne Mor ah Mor Niang ak Cheikh Tidiane Mouhamad Niang Euh, oustaz Ali Wade ak euh, euh, Ousmane Dieng ak ki nga xam ne mooy Adja Khady ak ñi fi teew ñëpp fa tabarakallahu gis nga oto yi nii rang rangale ñu jëm foofu incha allah dem foo na ak mbégte ak kontante loolu moo ñu téye tey. ah loolu day lu neex la lu sedd xol la lu leer la nga pare ne nit ci dëkk waa dëkk bi yëpp génn jiital imaamu ratib bi topp ci ginnaawam ànd ceeg. suñu naayam bu baax Mor ñang andi ci ak Serigne Oustaz Aline wad nak nak bu ko defé Adja khadige ñom ñep ñu and ak wad dëkk bi genn génn ban wax dëgg yalla bis du tuti borom lay tolol muy kiñ ko tuddé ak turandoom wad dëkk bi genn wax fa yalla lolu dafa sedd xol lolu dafa rafet dekk bi goor jigen mak ndaw ñom ñep genn lañ ñun day amuñu fayu mbay cioro waaye mbay cioro tamit amul fayu wad bi kontan nañu suñu xol sedd na momit mbay cioro xolam sedd na kuy ci lima lii moo yore woon ni Kapa gii daal ñu nekk mooy endroit ñoo bokk ndey ñoo sunu baay sunu benn lañ kaddu gi dama koy jël suñu xarit suñu suñu suñu imam muy sëriñ wad. Wade. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi ni ah, comme ne ko imam Omar jalla waxee rek. kon nag mbay bisam bi rëy ci nun ndax bis bi. Euh, day nur na borom ndax wax dëgg yàlla ñayu xarala ci jumaa ji ñayu xarala ci daayira bi kon nag bu wootee lii sax tuuti na xam naa da koo gàttal rek waaye mënoon na fi ëpp loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax rek yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal moom ñi mu àndal ñëpp wasalaamaaleykum wa kon kontaan nañ suñu xool sedd na bala ñuy jox suñu xarit bu baax bi suñu jigéen suñu lépp nga xamante ne ni moom jumaa ji moom ak i nawle ma ki moroomam taxawaay bu rafet la ci am. dana ko bale dana ko def ciuray ku bëgg jakka ji la ku bëgg dëkk bi la xaritu ñëpp la muy Adja xadi Gueye bala ñu koy jox kaddu nag danañ jox suñu sëriñ suñu xarit naay bi nga xamanteni ni mo dakk noddu ci yaraax muy sëriñ Mor ñang mu sann ci rek kaddu yu gatt rek. Euh, alaykum wa rahmatullah mohammed wax nga dëgg euh, ñu ngi dalu ziar bu baax mbolo mi tay woné suñu contenté di wane suñu cofeel ci babakar mi nga xamné mo ay bis sëriñ Babacar buñ ko tuddee bis euh, tàkkusaani sëriñ Babacar ñu jëlati cër jox ko Babacar Dieng ci turandoo yi kon loolu fa tabaarakallaahu euh, xel dal na ci xol sedd na ci euh, yal na yàlla àggale bis bi tamu lewet domm ci daraja yonent bi sallallaahu alayhi wa kontaan nañ lool ci moom fa tabaarakallaahu mais li imaam wax rek doy na sëkk asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Mor Niang bon na kàddu gi ci kaw gàttal rek ñu ngi koy jox soxna Adja Khady Gueye. waaw ah, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax macha allah Mbaye Thioro tur wuy na borom takkusaan sëñ Babacar ñu de ko sëñ Babacar macha allah tur wuy na borom ñaan nañ ko teewee ay éditions yu bëree bëree bëree bëri te yàgg koo teewee sama xol sedd na trop macha allah ñoom ñooy góoru jàkka ji waaye man maa jigéenu jàkka ji loolu moom ñëpp xam nañ ko. yàlla na yàlla motal lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum bis bi nag neex na bon nag fi mu nekk nii comme que kaar yi gaare nañ kilifa yi waxtaan nañ ba pare tàggatoon nañ waa dëkk bi yëpp ànd nañu ñu ngi def nag délégation bu mag jëm ca tant ba nag muy dëkk bi nekk suñu ginnaaw rek tolloog nag fii ci jumaay alaaji oustaz Mor Thiam foofu la ñu jëm ni délégation bi yëpp pare nañ mbir mi yàmb nañ léegi nag suñu xool sedd na bis bu toll nii muy ngoonuk Serigne Babacar Sy ñu tuddee ko mbay Dieng mu bokk ci turandoo yi ànd ci ak ay jigéenam yëpp jéetal ci jigéen boo xamante ne moom la ñu wax xarijatu bon loolu wàcc nañ Ababacar boo àndee xadija ànd ak Omar ànd ak Alioune ànd ak Mouhamad ànd ak waa dëkk bi yëpp bon sant nañ ci yàlla suñu xel dal na suñu xol sedd na bi imaam jiitoo ñu topp ci am wasalaamualeykum wa rahmatullah البلد وبينهم

baax ku yaru doon taalibe seex yàlla moom ko muy soxna buye jaaw ñi ngi koy di ñaanal fee mu tëdd yàlla xare ko àjjana ak mbooleem ku fa nekk ak moom ak ku fa nar fekk ji ñi fi des ku fi indi aajo yàlla na ko faj ku fi indi jàngoro yàlla na ko yàlla jaay muhammad sallallahu alayhi wa alaykum wa rahmatullah ah fa tabarakallah tax ñu ko muhammad allah bu demee ci kanam ci waaye mën a def rek def ko incha allah rabbi nii oustaz bu sàmm bi nga xamante ne mooy Mouhamadou Aliou Miskin di ko nuyu di ko ziare incha allah mu régal ñu tuuti rek bu ñu noppee incha allah ñu àggal jotaay bi ni ko sëriñ Baye waxee rek suñuy jotaay ak bu mu mu mënti mel dañuy bëgg vingt deux heures trente mu mu jeex ndax jamono dafa changé te fii ñu bëri Yeah.

تيجان شريف نخت ولا تدربون سفر تدربون شيخ تيجان تدربون يا خيار نعمزك يا نفسنا وين كل يوم وتفسد بلد الشيخ تفير بلد بيه تفير بلد الشيخ تفير

للمزايا يا كوني هماتنا أرض آلنا ذات البدر نعم المربي مرب أخي في جدوى الماوي أو أشباه الوبل في آفاق مغاميرا أصبح الناس خرقا في جدوى أجل في Baba yow Mawla tooñ nga ma trop tooñ nga ma indi ko fii wala wala jàngi jeex kii mooy madame Ba macha allah. bu defee rek ah waaw nii la war naa ko def waaw tabaarkalla yaa ma sañ sa nga macha allah yàlla yàlla na ko lekk kii mooy yaayu Serigne Babacar Sy macha allah bu defee rek mu mel ni bisu bisu Serigne Babacar la. ana ko bëgg Serigne Babacar. Serigne Babacar. xalifatu cheikh wal muxtaar yaa ngi di ba si ay bëgg ay daana. ko nuyu naa la sama mbokk yu baax an ko bëgg Serigne Babacar Serigne Babacar Serigne Babacar mooy xale watu Cheikh man muxtaar yaa fi di ma si yaay fajal diine ay daanam dajal barawat wàcc Serigne Babacar Serigne Babacar ñëwoo kenn ngir amam ñëwoo يا فلو يا فلو يا فلو قطب خاصك الخسي يا يديني أنا قصر قصر ما مكان قصر ما مكان أنا جنسيت جنسيت كل دين يكون دي تفني تفني نسمع كتير أنا يا خلود يا خلود أنا قصي سيارتك يا لك يا كل أكيد مذكر أنا أمين سطور الجيل salaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jéggalu kàdd bi ñuy yëkkati ndax joxe woon nañ suñu kàddu ba pare yaakaar naa li imam wax ak li ñang baalo wax doy na sëkk waaye nag euh, dafa am loo xam ne il faut ñu waxal ko suñu bopp ndax euh, teraanga du tuuti te ñi ñu tuddee bis bi mooy Mafal ba ak gurubam te kii taxaw di Maodo di suñu rakk bokk ci bis bi ginnaaw yàlla li tax ñu tuddee ko ci ci moom la jaare ndax moom moo ci bokk ñu ni ko en il faut ñu am fa benn parrain moom mun leen xalaatuma kenn ku dul mbay loolu mooy sabab bu xalaatoon keneen tamit kooku lañ koy jox kon ñu ngi sant Mafal ba ak groupam yëpp waaye sant suñu rakk ji di Maodo ci yëg-yëg bi mu am ci ñun di leen ñaanal yàlla programme bi yàlla nañ ko def ay at yu bëree bëri bëri ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa di gërëm Kappa TV yuusu comme niñ ko xamee yaakaar naa man ku ma bëgg a tënk ci benn famille wala nga bëgg a tënk ma ci benn tarixa yaa ngi xatal parce que man dama fi nekk pour jullit yëpp moo tax tey délégation bi gis nga ci murit gis nga ci tiijaan gis nga ci xaadir gis nga ci laayeen sama ami d'enfance yi gis nga leen sama mbokk yi bàyyiwuma kenn góor ak jigéen mag ak ndaw yaakaar naa loolu sant yàlla la yow it bi ñu la ko waxee danga nga sey say yitte yëpp déployer sa matériel ñëw ngir yàlla ak jëmm ji yal na yàlla fay la sa taxawaay fi nga bëgg télé bi egg yal na fa egg ci kattan yoon ci barke yonent bi sallallahu alayhi waaye di gërëm entourage yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina suñu imam ratib di sama sëriñ imam Omar Diallo sama nijaay suma mbag Demba Fall délégué de quartier imam maa ngi koy nuyu di ko ziar baax waaye di nuyu sama mbokk yëpp bàyyiwuma kenn yaakaar naa ñi nekk Sénégal ak ñi nekk bitim réew ñëpp kenn ku nekk biñ ko yéegee bàyyi nga ci sa xel def nga ci yitte ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp ñaan yàlla daje bi yàlla ba mu nekk suñu mujjug daje waaye yuusu li ma lay wax rek mooy en am na lu fa yàlla def déggoo la boo xam ne déggoo bu yàlla def muy dëgg boo fa ñëwee bu xew-xew amee xàmmee woo murit ak tijaan doy nga ci seede daayira mu nooy suruur yaakaar naa gis nga sëñ Abdoulahad Dieng gis nga Modou Diouf gis nga Mamkoor Mame Kor ñaari taxawaay la am ci bés bi dafa ñëw ci daayira bi waaye dafa ñëw ngir sama jëmm sama ami d'enfance la foo noonu nañ dafa noonu nañ lu bëri waaye am na sama xarit yu fi nekk Pape saw Mbaye Camara ñu ngi leen di gërëm su ma leen tuddee mën nañu yóbbaale ñi ci des ñëpp nuyu garañeeng bu baax a baax sama mag wax dëgg yàlla ku ma jox cër maa ngi koy gërëm bu baax ñaan yàlla eh, yàlla nañ fi teewaat déwén balaa déwén ku fi teew yàlla na yàlla faj sa aajo ku fi indi jàngoro yàlla na saafara ci barkeente bi sallallahu alayhi yusu kàddu yi munu won ñak ma yëkëti ko waye lepp rek sante yalla la contane la gërëm mbokk yëpp mbokk entourage yëpp gërëm sama famille góor ak jigen mag ak ndaw gërëm dëkkandoo yi gërëm soppe yi gërëm xarit yi di la ñaanal yalla yalla yalla yokku la bu baaxa baax ci barkente bi sallallahu alayhi wasallam ah loolu lañ amoon luñ ciy wax rek ñi ngi jéggelu bu baaxa baax di contane bu baaxa baax ci mbokk yëpp inshallah allah. salaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax di nuyu Capa TV di wax ne Mbaye wax na lépp lii def nañ ko bii mooy suñ troisième édition biñ toogee di réunion ñu waxtaan ba juboo ne endroit war nañ fi am benn parrain man maa personnel maa side ne nañ ko jox sama grand frère Mbaye Thioro parce que ñun lépp lu ñu xam ginnaaw yàlla moom la ñun suñ papa xamuñ ci moom lu bari lépp lu ñu xam biñ nekkee xale ba léegi moom la ñu xam moo ñuy éduqué lépp yi mbokk sagal nañu suñuy moroom tamit parce que imaginez li bi mu ñëwee ñetti car lay indi wa mu rafet torop waa ra endroit ken tesul ken desul comme nim ko waxe rek Youssou yow ñu lay gërëm bu baax a baax Capa TV suñu sag la tamit lepp lu wa endroit xew la rek dina ci taxaw def ci participation ba mat seuk te xaru ci dara tamit wa di contane nak ci ñepp jigéen ak góor mag ak ndaw waa ra ñepp wax deug yalla am nañ satisfaction bu baax a baax kontaan nañ bu baax a baax mbay nak yow dañ lay ñaanal yalla lo mën ren bu déwénee yalla nga mën lu ko yal na la yàlla bàyyi suñu kanam yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar yal na la yàlla yàggal suñu kanam nga yàgg ñoo gunge te kontaan nañ te gis nañ taxawaay bi nga am si ñun tamit seetaanoo ñu benn yoon ndax boo ñu seetaanoon yëpp mën na ci bañ a fekk parce que dañu yoon bu ñu musoon toog ba dégg ah, jaaka ji di noot wóor na yàlla fu ñu mën a lu ñu mën a def dañ koy bàyyi dem julli ji ba pare même bu ñu julliwul dinañ ñëw xam kan mooy jiite pour bu ñu moo jiite ñu ne ko diw moo jiite moo tax instant na alxuraan amul benn bis bu ñuy benn waxtu bu ñuy tardé grâce à moom mii la waaw ziar nañ ko bu baax a baax ñun mënuñu wax ci moom dara waaw parce que dañuy koy di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko suñ kanam yàlla dooleel ko yàlla kattanal ko wax dëgg yàlla suñu sag la man personnel dafa ma ruus ba du wax ak man sax yenn wax yi parce que sama kersa te man tamit noonu laa mel ci moom su ma ko bëggee wax dara sax damay sëgg wax ko li ma koy génn dem wax suñu fierté la yëpp rawatina waa famille Diéguène moom mooy suñu bras droit heure bu gis ko rek bilaa wala heure bu ñu gëstoo ba gis ko rek dañuy am fit waaw di jaajëfal ñëpp nag affaire yi moom wax dëgg yàlla yàlla depp na ci gars yi kontaan nañ sama gars yëpp bég nañ waaw ziar nañ bu wéréw dañuy gërëm tamit Capa TV Youssou yow suñ grand frère bu baax nga yow tamit wax dëgg yàlla ñu ngi lay ziar di la ba yàlla nga am sey yëfi bopp waaw ñu loolu lañ lay yéene yàlla nga am sey yëfi bop ba yow xam naa ne boo amee sa yëfi bopp rek di nga ci yaatal ñëpp incha allah jërëjëf loolu moo nekkoon kàddu yi Youssou Youssou xel dafay fatu maa ngi gërëm sama mbokk politiciens yi ah, Ahmed Darame Ahmed Tamsir daraame gis nga convoi bi nga gis ñaari bis yu rafet yooyu moom moo ko jël ngir yàlla ak bis bi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a egg yàlla na ko yàlla eggale lu muy yóotu yàlla ko ci yàlla jotale Ahmed Tamsir Darame maa ngi koy sant di ko gërëm Sidi Baas tey rek la ko yëg yàq la xam ne ñoo def ci teraanga bu mag a mag mag ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko ziar bu baax a baax ak ñëpp rek bàyyiwuñ kenn yuusu tabaarkalla ñu ngi sant ñëpp.